mu des nak ñetteelu doom ji moy ngeeneli julli ya wa fadailuha ngeeneli julli bi ci njëkk raful yadayni moy yëkkati sa ñaari loxo indal ihrami fa tak fa kabiru harmal ba hatta tuqabila bañu tollok ñaari nopp ya bi ngay def fil ihram bo ne ba nga ne allahu akbar rek jeexna hatta bo boo yëkkati ton loxo sax julli ga mom wér waye nak sopp nañ nga sa ñaari loxo yi bam tollok sa nopp ya yëkkati ga fu mu war tollu ñetti wax la ci borom xam-xam yi wax ñen nga ne nga ko wara bam tolok sa ñaari mbag yi ñenn nga ne dang ko wara yëkëti bam tolok bi maana sa wet yi ñenn nga ne moy sa biir bi noonu ñenn nga ne dang ko wara yëkëti bam tolok sa nopp yi loolu nak boko waxee moom dugal nga ñett yépp moo tax borom lax dari nak na tolok nopp ya bu tolok nopp ya moom dugal na biir dugal na timit mbag moo waral mu ne tu qabila ba ñu tolok usnay ni ñaari nopp ya koku sula la wa qawlul maamoom waxi wal fazi ak kenn kuy julli wax gi ñuy wax ne rabbana yow suñu borom wala ka ñeel na alhamdu sant koku timi ngeenel la moo waral yow kenn booy julli da nga wax ñaar yow kenn booy julli da nga wax sami allahu liman hamida sunna la ci yow waaye tamit boo paree da nga wax rabbana wa lakal hamdu mu nekk ngëneel ci yow waaye nag su fekkee maamoom nga dañ laa jiite ilimaan moo lay waxal sami allahu liman hamida yow nga waxal ko rabbana wa lakal hamdu moo waral mu bool leen ñoom ñaar ne wax xawlul maamoom yi waxi maamoom wal fasi ak kenn kuy julli ñoom ñaar ñëpp war wax ne rabbana yooyu suñu borom wala kañ ñeel ne alhamdu sant kon yow ba nga julli yow kenn waxoon nga sami allahu liman hamida waaye waxaat nga fiiti mi rabbana walakal hamdu booy maamum nag yow rabbana walakal hamdu rek ngay wax iliman ja moo lay waxal sami allahu liman hamida ba ca tegu wa taminu mooy aminu waaye amin mi ngi amee baax baadal fatihati gannaaw fatiha amin ku ko war a wax mu ni ñette julli waaye ñaar a koy wax lil fas yi kenn ku julli na wax amin bu fatiha jeexee moo xam ma ngay biral moo xam ma ngay yelu wal maamoom mi maamoom moom mi nga xam ne tamit dañ koo jiite rawatina buy jàng moom kenn bu ne bu ne wala daal dina wax amin suñ ko suñ ko jiitee tey imaam jay wax ca kaw bu imaamee wala daal tamit na wax na wax amin kon nag ku ko du wax mu ne walaa yaquluha du wax du wax amin imaamu imaam faw mu ne ah kay ila fi qiraati sirri ndara ki jàng yeelu imam mom bu ci jang yelu demen tu suba takkusaan bu ne wala gaalina kom ken ko wax amin waaye su fekke jang biral la bu ne wala gaalina ña ca maamoom ya ñokay waxal amin waaye hatta bu ko waxon timin nak ci jang biral ya yaqut dara ci julliga ga yonentu bi sallallahu alaihi wasallam na ñi wax amin ci gannaaw fatiha ndax mu ne ku sa amin depok, aminu malakai, yi ñu nangul la jéggal la ndax saa ci fu mu jàngee ba wala dalina rek ah maamoom ya mom ñay wax malaaka yi wax amin kon nak wax len amin ku sa amin depok. aminu malaaka ñi jéggal la nangul la wa tasbihu sàbbaal fi rukkoo ca rukkoo ba kooku tamit ngëneel la sàbbaal ci rukkoo nag mooy boo téye sa wóom yi nga wax ne subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi la ca gën a néew mooy ñetti yoon boo bëggee gën a mën a dal def ko juróom-benn yoon juróom-benn yoon daal boo ko waxee subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi moom moom def nga tumaani na mooy sa cër yi dal na lool moom wa duwaa wu ñaan fi sujud yi sujud ba sujud ba mom tamit bëgg nañ nga ñaan way tay tamit da fa sabbal ya nga fa doon wax ne subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ñetti yoon mo ci gëna neew juroom juróom benn yoon mo ci gëna bari su ko defé nak su paré fofa lo bëgg ci ñaan man nga ko ñaan way wax ko ci arab bu ko wax ci olof bu ko wax ci benen lang boko ko ci benen lang rek day ci julli gi ndax bokku ca waye man nga fa rabbana atina man nga fa jang yalla jéggal la say bakkar man nga fa ñaan yalla jéggal say mbokk seeni bakkar man nga fa ñaan yalla may la aljana musul ci safara su ko defee nag yooyu yëpp mën nga ko ñaan ci biir sujjóot ba ndax kat fi jaam bi gën a jegee yàlla mooy fam sujjóotee mu waral boo fa sujjóotee loo fa ñaan yàlla nangu ko ba ca tegu ca ngëneel ya wa tadwilul qiraati guddal jàng fi subhi ci suba jàngi suba dañoo bëgg mu gudd li ko waral suba dafa gàtt nekk ñaari rakkaa ñaareel bi dafay fekk nga baxe ko ci ay nelaw su jàng ya guddut ba xëpp rek manam man nga man nga fa man nga gemendu moom waral ñi bëgg nga jang fa jang yo xamé da fay xaw ki motax sañu indi biral gi nga xamné boy wax ci kaw day waral nga xew waye su buñ ko doon suñ ko doon yeelu ñu bari dana ñalaw naka non timit geexee non mo waral ñu ne jang guddi kom dafa jégué ñalaw di leen koy wax ci kaw ñi bëgg na nga jang lu gudd suñ waxé lu gudd moy foko mané dal ta mokal nek fa doyal ci liko doré ci suratul hujurat ba ci habasa wa tawala sar wo ki jël fofu jang lu gudd jàngi suba dal dañu bëgg naaw bu fatiha jeexee liko doré ci suratul hujurat ba ci abasa wa tawala sar wo ki jël rek yaangi def manam tiwaanul mu mom moom lañ bëgg waye nak ah bo li wax gudd gudd nak na fekk nga mokal ko de waye boko ko mom ay ah la nga mokal rek mo waral na ben iliman bu bëgg ki bëgg daraja ñi gital ko rek manam mu commencé jang fatiha jeex rek mu ne abasa wa tawale waye man ta jall mu nekk fa ne wa tawale wa tawale wa tawale wa tawale rek yag lool yene ya ko aka sop isa jaa nekk fi xul walaawu nekk fi nga bàyyi ko fa dem ci abasa wa tawale kenn du la gàgganti ma ne ko waaw dëgg la de sob na de ku mokkul abasa wa tawale jiite nit ñi kon nag jël li ne la lu gudd la na fekk nga mokkal ko de waaye boo ko mokkul bàyyi fa dem jàng li nga mokkal ndax li nga mokkal boo ko jàngee yàlla mën la caa jéggal am na benn euh, sariyatu muy ñàngal ab xare yonentu bi hebal ay sahaba ne dem leen ci xare ba xam kum leen desinel ne na nekk seen iliman feeg ba ngeen ñëwee kooka diirab lam nekk ca xare ba fatiha rek ak la daan bu fatiha jeexee rakkaxa bu ñëk mu ne qul walaahu ahad rakkaxab ñaarel qul walaahu ahad jeexé timis ak julli yépp gaay yi ñitt ci mënuñ ko muñ ne ko ah yonantu bi sallallahu alayhi wasallam imam ji ngi boole woon ak doy na war de mom dal diirab lañ nekk ci xare ba lépp mosta fe fatiha qul walaahu ahad yonantu bi xoo ne ko yow timit saar yi niñ bëree ni qur'an bëree lu tax nga xem ci nag qul walaahu ahad rek mu ne ko yow yàlla dal saar wi ni mu wétalé yàlla lu yàlla mom lépp mu jox ko ko lu momu lépp mu dàqal ko ko ba bu doon yàlla am dantité moom mooy dantitéem sopp googu daal moom laa sopp saar wi yonentu bi ne ko sopp gi nga sopp saar wi tàbbal na la jana kon xoola ko xul wala wara la doon jàng kon nag su may wax lu guddu daal ca ka ko man ku ko mënut na ca la man moo tax mu ne wa tadwilul qiraati guddal jàng fi sufi ki suba boo bëggee ñi boo gisee mu gudd bëgg mu gudd suba dafa bàyyeekoo ci nelaw ñaareel bi dafa gàtt kon fokk jàng ya gudd ndax julli ga xaw a yàgg su ko defee tamit fokk maanaam nga jàng lu gudd ndax dàqu ci yow wa zuhru tusubar taliha mengna bi mana mengna na suba ci guddu ñaay waye nak suba koy gëna a gudd tuuti su ko defé won boobaa da nga la ci hujurat ba ci habasa wa tawala men nga jël saar ya ci gëna gatt bu buy su ko tamit bëgg nañ manam mu gëna gatt fofu tuuti boo ko defee bo boo gisee di gudd dafa nek waxtu waxtu noppalu xaylu la muy sest xamni nit ki bu xañee ñaareel dafay xaw a gëmmantu moo ñu ne ko nag kon yu gudd ci sa julleeg tusubaar gi nak nga ndax ñu bari rek bu ñuy reg rek dootuñ mën a regleeti fokk ña ngay jéem nelaw yi su ko defee moo waral ñu bëgg tusubaar gudd moom nit ngir dàq nelaw ba ca tegu wa taqsiruha mooy gàttal jàng ya fil asri ci takusan takusan boo gis ñu ne ñuy jàng ya gàtt day fekk heure soxla la ñëpp dañuy xat ña liggéeyoon ña ngay commencé wàcc baña balaa ambutiyaas bàyyi am ñi mën a xat-xat ya ñi sàmmi woon ñi ngiy jox si ñu nekkoon ci àll ba ña ngay lonki machine ya su ko defee na xat-xat googu takusan di la fekk toujours takusan ci xat-xat lay fekk nit mo wara ñu ne la kon may nañ la nga gàttal jàng ya jël muy gudd wal maghribi timis moom tamit dañoo bëgg mu mu gàtt moo tax mu ne wa taksiru ak gàttal ko fil asri ci takusan wal maghribi ak timis timis moom boo gisee ñu bëgg mu gàtt timis dafa gàtt muxtaar foo xam ne fa nga ko kàbbaaralee jàng ko fa sëlmalee ko fa fa la yam kooku moom bu guddee dafay génn muxtaar ma moo waral moom ñu bëgg jàng ya gàtt wata wasatuha bëgg nañ digg doomu fil isaayi ci gexe gexe moom bëgguñ mu gudd ba hëpp waye bëgguñ timit manam mu gatt ba hepp ndax timit waxtu gehe bu guddee ba hepp man la yobbu ci manam yeexa teud yeexa teud gi man la yobbu ci bidanti bidanti man la yobbu ci yeexa julli suba bo fi nekké tay bëgg fe julli gexe goo xam ne balaa nga kaa sëlmal min yu bëgg jot te nafila go doora bëgg dem tëri su boba da ngay ki mo tax ñu ne la gehe moom na xaw a diggu doomu tuti ndax ga gaaw téla dem nelawi téla xew téla mëna julli timit suba wa takun tay nekk suratu sar ula gu njëkk ga qabla saniyati njëkk gu ñaarel ga da wa at wala te gën a gudd min ci moom toujours saar wi nga njëkkee ci rakkaa bu njëkk mooy gën a gudd mooy gën a timit tawe ci kaamil bi bi su fekkee ne saar wee da ngaa jàngoon fatiha ak qul walaahu ahad dañoo bëgg bu bu ñaareel bi bu ñëwee jàngal fatiha ak lex ak maanaam qul a'udhu bi rabbil falaq wala qul a'udhu bi rabbin nas xam ne moo gën a féetee suuf waaye fee nga jàng fatiha qul walaahu ahad ca rakkaa bu njëkk bu ñaareel ba nga dem jàng fatiha ak tabat dafa gën a kawe ndax kaamil bi dafa ñëw ngir wàcc kon yow da ngaa yéegaat bi nga wàccee kon dañoo bëgg daal ngay wàcc lu ñëw rek gën a suufe waaye bu mu nekk lu gën a kawe moo tax mu ne euh, wa takkoon tay nekk suratu saar ula gu njëkk ga xabla saaniyati na ko gën a na nekk na ko njëkk gu ñaareel gi ci kaamil bi wa at wala ta gën a gudd min xàcce moom bu njëkk ga moo ko war a gën a gudd bokk na ci ngëneele wal xëy atu melo maalumatu wuñ xam fi koy ci rukkoo ba wa sujud ak ba bu ko defee nag ku nekk ci rukkoo dafa war a xam melo wuñ xam ne ràpp jëbi ci suuf ak bakkan ba jël ñaari loxo yi ne ko ràpp bañ caa bank dara jël bët ya jël ca tànk ya toogaay booba melaw woowu nga def ko ci rukkoo ci sujjóot ba nga def tamit melaw wuñ xam ca ca ca rukkoo ba maanaam sëgg ba sa gannaaw gi tolloo nga jël sa ñaari ténk yi ne ko ràpp sa bët wóom euh, jël baaraam ya joxoñ ko mu jëm suuf nga bañ caa bank dara bañ caa yëngal dara bañ muy wetu jëm benn côté waaye na tolloog yàll bi maanaam wàcc ci suuf noonu melaw maanaam mooy melaw wuñ xam ci ci ci rukkoo wala mooy wuñ xam ci sujjóot wal juloo su toog togaay buñu xam tamit dañ ko bëgg bëgguñ nga def togaay yu gudd yooyu moom la yonent bi daan firi sallallahu alayhi wasallam jonk naa yu xaj te mooy nga jël sa njëkkeekaay yi teg ko ci sa kaw tisteen yi toogaay ba gudd ndax da ngay xaw a yëngatu waaye dañoo bëgg jël sa ne ko ràpp ci suuf su ko defee leem baaraam tànk bële jël beneen beneen tànk ba yëkkati ko jël baaraamam nday bi samp ko jël maanaam nag loxob càmmooy bi jël baaraam ya teg ko ci kaw luppab càmmooy bi bañ caa bank dara bañ caa yëngal dara door jël nag loxob càmm loxob nday joor bi bank ñetti baaraam ya tàllal ñaar ya mooy bu bu sànneekaay ba ak bu ndey ba jël ko teg ko ci sa kaw luppab ndeyjoor bi su ko defee loolu mooy toogaay bu nga xam tamit ci julli wal xunóotu xunóot bëgg nañ ko siran ci yeelu xunóot nag moom yeelu lañ koy def kañ lañ koy def xabla rukoo yi njëkk rukoo ba wa baada suurate gannaaw saar wa fii saaniyati subhi ci ñaari rakkaxab suba way jos na dagan baada rukoo yi mu nekk gannaaw rukoo ba maanaam daal xunóot dañoo bëgg nga def ko gannaaw bi nga jàngee fatiha ku saar ci rakkaxab ñaareel bu suba ba su ko defee yaa ngi koy def njëkk ngay rukkoo soo ko fàttee ba rukkoo ba ne sami allahu liman hamida mën nga koo jàng foofu ba pare doo a dem su jóoti rukkoo comme nag xunóo ni wa nastaghfiruka wa numinu ko fekk ba muy jeexee soo ko bàyyi woon tay ko wala nga bàyyi ko fekk da nga koo fàtte dara waru ca kenn du moom dañ koo sopp rek lu ma wax ne luñ sopp dara jëru ko defee kon foofu lañ koy defee xunóo tangoog ah, moom nag dafa bëgg mu ne nga def ko ci suba donte le xam na xadis yu wax ne yonentu daana xunóo ci ci am na sax yu ñëw ne daana xunóot ci te tusubaar soo xamaan ne musiba am na wala fitnaag yooyu wa wa duaa woog ñaan baada tashahudi gannaaw taaya ba saani gu ñaareel ga taayam ñaareel ba mooy gën a gudd moo waral gannaaw bi taxiyaatu jeexee bëgg nañ nga ñaan fa gannaaw bi nga julli ci yonantu bi nga ñaan rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasanatan ak ñaan goo man baax na soo tamit baax na fa wa yakoon day nekk tashahudu taaya saani at wala di gën a gudd mu ne awali ci bu njëkk ba toujours taayam ñaareel bi mooy gën a gudd bu njëkk ba ko defee moo waral ñuy wax ne taaya bu njëkk dañoo bëgg borom xem ci wa ala ibadillahi saalihin taayam ñaareel bu ñëwee tahiyaatu jeex nga julli ci yonent bi mu jeex nga def maanaam rabbana atina ak ñaan ngoo man door a wax asalaamu aleykum ba ca tegu wata yaa wata yaamunu nday jooru bi salaami ci sëlmal ba booy sëlmal rek ngay sànniwaale sa xarxaram bi ci ndeyjoor nii wax asalaamualeykum sànniwaale paasu xarxaram bi ci sa ndeyjoor ndeyjooru kooku ngay ndeyjooru sëlmal ba kooku tamit maanaam ca ngëneel ya la wa tahriku sababati yëngal baaraam sànnikaay ba fi tasawudi ca taaya ba maanaam baaraam sànnikaay ba dañoo bëgg nga samp ko bañ koo leem bañ koo bañ koo wàccee nga def ko nii carrément mu mel ni paaka boo joxoñ su ko defee nag di ko yëngal ndax yëngal gi dana tax nga fàtte nga fàtte nga fàttaliku ne yaa ci biir julli gi su ko defee tamit yëngal gi nga ko yëngal ñu ne maanaam mbolde la saa yoo yëngalee rek mi ngi rey seytaane xam naa saytaane yee bëri waaye li yëngal ci baaraam sànnikaay yëpp bu njoon bu wax dëgg yàlla buy rey saytaane waroon naa jeex waaye dañoo bëri xam naa su ko defee nag mu boo même nag boo boo wakkee ci ñi nga xam ne yëngaluñ dañ ne ko tekk ñu ne loolu yaa ngi junji kenn ak yàlla ci ba tey tamit kon baax na yëngal baax na ne ko tekk bañ koo yëngal tamit baax na waaye yëngal nag mooy tax nga gën a xam ne yaa ngi ci julli ba nga xam ne doo doo ko fàtte mu ngoog ba yiñ sippi julli nag lay wax wayu ko raw si béef na iltifaatu gestoo ku xas jàkkaarloo yàlla looy gestoati gesto nak ñaar la su fekke da nga gesto sa loss bi rek gesto waye sa sa tank yi déplacer wut su baba mom yàqut julli ga waye sib dañ ko waye da fekke ne gesto go xam da wa déplacer wu wëlbeuti ko qibla koko mom julli ga yaquna fi salati julli wa taghmidul aynani gemal ñaari bet sib nañ ko ndax lool day melni yaangi gis da te day wel bi do to man tewlu julli ga xolal kay bu baax mais nak bu amé lu la traverser lu haram, ku xamne ku bon sol lo xamne ne baaxut jaar ci sa kanam nonu Ah, nga yaakaar na da nga ko mën a xool kon nag gëmmal fekk ba muy jàllee kon daal bu darooreetu amee mën ngaa gëm mais bu darooreetu amut del xool te sax boo xoolee fa nga war a xool mën naa am lu xaraam bu la traversé doo ko gis ndax li ñuy bëgg nit ki buy julli nay xool fa muy sujjoot di gendeeku ne su ma deexee suuf si may xool ci lañ may xotti so maanaam sot dugal ma ci biir su boobaa dana am leneen looy xalaat lu loola su ko defee nag mu nga wa taxmilu ay ne ni gëmal ñaari bët ya wal basmalatu wax bisimillah wa fil faridati julleeg farata ba tey moom ci mazhabu Malik dafa bokk ci yuñ sib Malik dafa bëggoon daal ci mazhab bi waaye du Malik ak boppam Malik moom dafa wax ne maanaam euh, bismillahi rahmaani rahim dagan na nga wax ko ci julli dagan na la wax waaye mazhab bi nag ñoom ñoo wax ne ñi bind ñu mel ni ibnu qasim ñoo ne sib nañ nga wax bismillahi rahmaani rahim sib nañ nga wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ñoom ñëpp nag seen werante fenn rek la mooy dañuy werante ne bismillahi rahmaani rahim moom ci fatiha la bokkam wala bokkut ci ñi ne bokkut ca ñene bokkut ca dañoo wax ne bu ca bokkon du ba hat rahmani rahim ndax yaangi jang rek commencé ne bismillahir rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin go fenn waxat rahmani rahim ñu ne kon lam ci bokkut moo nga gaaw ko baamu cheikhou tiyane ci la bokku de bismillahir rahmani rahim ji nek ca bismillahir rahmani rahim bokut rahmani rahim di ci bir saar wi de bismillahir rahmani rahim jele manam melola wu sax dak ci jëm yalla ja rahmani rahim ji nak ci bir saar wi maanaam melo la da ko ci la dom di waajur waajur ci la yërëmee doomam ci nga yërëmee ku néew doole ci ngay def lu nekk ma waral yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla xam na téeméeri yërmande waaye juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñeent yépp denc na ko ba yowmal qiyaam benn ba rekk la yàlla wàccee ci kaw suuf jaam yi di ci di ci yërëmante mu ne kon yee da koo xable waaye nag yee moom dafa sax dàkk ca jëmmam ja kon yee zaati yetaani la kenn ak maanawi yetaani la kon nag mu ne ci la bokk moo waral mu ne képp ku julli maa ngi lay conseillé ngay wax bisimilah rahmaani rahim ndax Cheikh nee na soo ko waxee sa julli gi wér na ci borom xam-xam yépp xamul kenn ku ne si julli gi yàqu na waaye nag su fekkee da ngaa julli te waxuloo bisimilah rahmaani rahim am ñu wax ne bisimilah rahmaani rahim wax ko dafa war su ko defee nag kon comme dafa war lañu wax nag boo ko waxul sa julli gi dafa kon rawatina nañu japp ne bismillahir rahmanir rahim ben aya la ci fatiha amna na ñu ko ñu koy limee noona kon nak dal so bëggé sa julli gi dal ci borom xam-xam yépp la ñu war nee kon del wax bismillah rahim mu ne ku wax bismillahir rahmanir rahim dal sa julli wér na ci borom xam-xam yépp ku ko baxé wir wér na ca ñenn ña way wëru ci ñenn ña ba la ñu war na kon julli gu sa gu julli ku wër ci borom xam-xam yépp mo gën gu wër ki ñi ta wëru ci ñëlé su ko wa ta'awuzu muslu fil fadli ci farata farata moom bu ki jëru jëru a'udhu billahi minash shaitanir rajim man nga jang rek kabaar rek jang bismillah rahman rahim jurul musuuti yalla waye san dana ñu dagan ñom ñaar nak fi nafli ci nafile nafile moom boo doon julli dagan nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim dagan nga wax bismillahir rahmanir rahim su ko defee yiñ ci bokku na ca wal wuqufu taxaw ala rijlin ci tank wahidatin bay benn faw mu ne ah ilaa nga tula dare ba yag qiyamu taxawaay ba taxawee ben tank rek jël ben ba ko nag sib nañ ko waye su fekke tay nafile ya la hon wala ngay jang saar yu guddu su ba ben tank ba toqi may nañ la nga taxawee ben tank ndax daruriyatu ba ba tey bokk na ci wiñ sib waxtiraanu rijlay ni lënkale ñaari tànk jël benn tànk ba galgal ko ca morom ma sib nañ ko waaye bu taxawaay ba yàggee ba sabab loola sibatuñ ko yiñ sib bokk na ca wa jaalu dirhamin def dërëm aw xayri yi mbaa dul dërëm maanaam nga def ko fii famihi ca gémmañ ga jël wecca dugal ko sa gemmañ wala tangal wala manam li eh, li doon lek kiya gud mang ngi gemmañ gémmañ nga taq ca koku timin manam bëgguñu ko yoy dañ ko sip ndax dafa lay jax-jaxal ba tey na ca wa kullu ma wa kasaalika nak nonu kullu ma lepp lo xamne yu sawiso dana jax-jaxal ko fi jey bi ci posam aw kummihi mbaa ci loxol mbubam bu ñëk ba magña seen loxol ci lañ def pos ya yow nak kon lepp lo def ci sa loxol wala sa poos yi muy jax-jaxal sib nañ ko lu mel ni weccat soo yëngatoo maanaam weccat wi kalang wala nga def ci sa alise muy sone ngay julli su ko defee doo xamante ci fi nga nekk yooyu yëpp sib nañ ko de mu ngi koy ko waaye teg ko sa pegg mbaa nga dugal ko sa poos muy rek sone rek sib nañ ko moo tax mu ne kullu ma lépp loo xam ne rek yu sawisu dana jax-jaxal ko fii jay bii ci poosam aw kummi mbaa loxol mbubam aw ala zahri yi mbaa sa gannaawam nga lu mel ni yaa ngi julli xale di héeg ci yow ak a wàcc ba ba ñàkkalaat teewloo su boobaa maanaam kooku tamit sib nañ ko waaye su fekkee nag nekk nga koo xam ne bu xale bi yéegeeg wàcce tamit du tere yaa ci julli ga mënu caa yàq dara kooku dara nekkul ca ya. sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam daana julli umamatu daan yéeg ci kawam buy dem ne ma ngay taxaw yëkkati xaale ko buy dem ba ne ma ngay rukkoo wàccee xaale ko te loolu moom yàqutoon dara ci julleem ga yàqu tamit teewlu ga waaye ya nag soo melu ni moom ah su boobaa nag moom del wax na na xale yi toog fale nga dootu julli bokk na ci liñ sib wata fakkaru xelaat fi umur dunya ci mbiram àdduna kooku tamit sib nañ ko wa kullu ma ak lépp loo xam ne yasxulu dana soxlaal ko xanil xusuuci wala sagal yàlla fi saati julli maanaam képp kuy julli jël sa xel sànni ko ci àdduna su boobaa li ko def moom sib nañ ko xam naa nag julli ba sëlmal te xelaatoo dara ci mbiram àdduna kooku moom jafe na moom waaye nag di ko xelaat ba xamatoo rakaa yi nga ne di ko xelaat ba xamatoo foo toll kooku moom nag baaxut lu bon la waaye nag ñi sa xel léeg-léeg sàcc rek dem fenn jafe jafe gi mu jafe sax tax borom xam-xam ci jamonooy ab euh, saxaaba yi tegaloon nañ leen ci gétt ak gëléem gëléem yu bëri ñu ne leen ku mën a julli ci yéen ba julleem jeex te xelaatu dara moom moom maanaam gétt ak gi am ci ñoo xam ne bi ñu xamee ñaar rakka lañ xelaat am ñoo xam ne benn rakka am ñoo xam ne ñetteel ba aboubacar ma ca gën a nekk jàmbaar daal ba mu xamee ñeenti rakka bay taaya ci la xelaat ñoom nag ñu fenn lu ñu wax rek dëgg la bañ pare ñu ne ko loo xelaat mu ne dama xelaat ne gétt ak gi su ma ko jëlee fu ma leen xeew moom moom loolu la xelaat bu ñi wax nga ne xelaatuma dara waaye ñoom lu ñu wax rek dëgg la ci ñoom waaye benn waaye fële moom dafa doon julli yàlla dogal daal ba muy pala pala bi julli ga yàkkamti sëlmal rek daal di woow morom ma ne ko yee yow sama weccat yu ma delloon dafa hëpp des na maanaam yaa ma war a jox ñaari junne xam nga kooku ma si biir julli gi laa ko xalaatee kooku xam nga doy na waar su ko defee kon nag xalaat ci daal bëgguñ mu bëri ba hëpp balay di andil yeneen problème moo tax mu ne ku ko def sax sa yool day wàññeeku waaye xalaat ci julli daal buñ la waroon a fay 100 mën nañ laa fay 80 wala ñu fay la 90 waaye moom dootoo amati 100 pour cent moo tax mu ne wata fakkuru xelaat fi umur dunyaa ci mbiram hadduna wa kullu ma ak lépp loo xam ne yeesuxuloo dana soxlaal ko anil xusooci wali si ragal yàlla rek ak toroxlu fi salaati julli loolu timit nekk na loo xam ne doy waar léengoog ak li nga xam ne ëmb na ko ci ay doom